صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك كلم يقع التكوين ما خلقت شمس ولا قمر إليك مستندي فاجعل محبته عيشي ونصرته سعي ومعناه مصداقا لمعتقدي وأبدلن النحاس يا كريم به درا وروح بذكراه على كبدي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر عن مدد أخرى الحضرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ci yàlla góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi nuyu ñëpp di leen tatagal di jiital si nuyoo bi suñu nijaay cheikh abdullahi ibnu cheikh mohamad al aqib ibnu mawlana cheikh ibrahim radiallahu anhu di nuyu suñu mag suy jaali siise doomi sëriñ mbay siise doomi moulana seydi ali <coughs> di nuyu suñu nijaay xaaj abdullahi ñas seyd ibra suñu nijaay ñas di nuyu cheikh ibrahim ndaw di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan yàlla weral baatam te yàggal ko ci lef wi mu ne nga xam ne ci lef yu bàyyi gërëm la walla yim gën a gërëm la bokk ndax tuddukat yàlla yi bàyyi waxoon na ne ci rexlaam gaana tudd ñu bari na dajeeg naa ñoom nekk kadal muriduuna wa dikrullahi chiaaruhum wal kullu xeyrulaahi ba tey it taalibe yi waaye seen màndarga daal mooy tudd yàlla te kenn ku nekk ci ñoom doo ko fekk muy caaxaan doo ko fekk muy fox te ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy liggéeykat pays bi comme ni ko Baye waxee ci même rihla bi ne wa dakiruuna allaha ay xuddaamu faydu tijaani kulluhum humaamu ñoom ñëpp ay sang lañ ndax lef woowu ñu am di tudd yàlla di di di fàttali nit ñi yàlla waaye di leen taggal mawlaana rasulillahi mi nga xam ne Baye wax na ne ñu gën ñu muy toogaaleeg mooy tuddukat yàlla yi ñi nga xam ne dañuy tagg yenent bi wa xayru jalisin man yuraddidu dikrahu uhibbu fatan yajtu bil imdaaxi laafida di nuyu Cherif Moustapha euh, ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi toog ci jotaay bi xaaj Abdullahi ànd ak ñëw fii waaye di nuyu al muqaddam Seyd Aliou Diagne al imaam mi nga xam ne moo yëkkati kàddu sànq euh, niki noonu ñu ngi nuyu Fall mi nga xam ne moo doon wax léegi euh, yi muy wax noonu yëpp yi gis la ci yu baax yàlla ñu ko yàlla boole dëggalal ñun ñëpp. waaye di nuyu ki waral jotaay bi sëriñ Mamoun Seck di ko ndokkeel ci bés bi nga xam ne euh, daf ñi ci oo ngir dajale nit ñi ñi tudd yàlla ngir dajale nit ñi ñi dajee ngir yàlla waaye ñi fàttaliku wante waajal gàmmu comme ni mu ko tuddee jotaay tudd yàlla yi jotaay gënu koo màgg ci jotaay yi doomi aadama bés penc dina rëccu lu nekk ba mu des jotaay bi nga xamante ne tudd na fa yàlla Muaad ibnu Jabal wax na ne doomi aadama amut lum xadulee boppam alaaxira loo xam ne dina ko musal ci mbugal yàlla lu toll ni dikkare tudd yàlla te taalibe bàyyi fu ñu mënti nekk rek xaw ma loo xam ne war naa nekk seen màndarga lu gën kawe tudd yàlla te bàyyi jàngale na ko lu bari wax na ci tukkeem ñaareel ba muy dem Màkka di wax ne gannaaw bi nga xam ne jugee na Gàmbi jugee na Dakar dem Gàmbi ne wajadtu qawmi yatarannamuuna li dikri rabbi yatawaajaduuna kama taraktuhum kada bi kawlaxin qad sakiru min dikrihi baxin baxin mu ne fekk naa sama gaañe ca Bànjul ñi ngi rànnentalu ci tudd yàlla di jaayu ci tudd yàlla comme ni ma leen bàyyee Kawlax mooy ne dëgg lenn la rek du soppeeku taalibe Baay bu baax ku nekkati taalibe baay rek mbaax rek moo yàlla ci yow taalibe baay bu baax ak fu mu mën a nekk ak jamono bu mu munti ñëw sëriñ Aliou Cissé la war a niru maam Ibra Fall la war a niru Cheikh Omar Touré la war a niru sëriñ Ousmane Ndiaye mu mag ma la war a niru Cheikh Omar la war a niru ñooñ nga xam ne Baye moo wax ci ñoom ne ak àddina lum jaxasoo jaxasoo jaxasoo yéen jëflante jëflante na ak yéen jëflante boo xamante ni duma ko mos a jëflante keneen ku dul yéen te ku bëgg yooni mbaax ak ku mën a doom fa mu ci yéen kon jamono yi mun naa soppeeku waaye màndarga taalibe baay moom du mos a soppeeku te màndarga taalibe baay mooy baax mooy tegu ci yoon yonentu yàlla muhammadin mooy topp yoon yi yooni Mawlana Cheikh Ibrahim mi nga xam ne yoon du ko gën a rafet ndax lépp ci mbaax rek la ko teg wax naa ko boppam ne laa axmilu nnaasa illa ala taqwallahi fi sirri wal jahri bimtithaali awaamirihi wa ijtinaabi nawaahihi fi zaahiri wal baatini wal ijtimaaci li salawaati alxams wa qiraa'ati alwazifa wa dikri llahi sirran wa jahran wal amali li kasbi alxalaali faman imtathala amrii falaa yashtagilu illa bi haada wa man lam yamtathil amrii famaa ana bi saaxibi sayfin wa maa ala rasuuli illa albalaagu almubiin mu ne man du ma soññ nit ñi lu dul ci ragal yàlla ci naka ci lu feeñ ak ci lu nëbbu mooy ne maa gën a ragal yàlla bu ma nekkee ci biir mbooloo mi bu ma wéetee man kese tukkil àddina loolu àggul ci ragal yàlla mawaacidu lwaacidi lan tuqbala xata taciha nafsuhu awala yaa qawmi man adlamu min caabidin xaalafa maa qad qaala fi lmala adhara linnaasi ixsaanahu wa baraza arraxmaana lamma xala waarekat bu mu mën a doon ab waareem kenn du ko nangu lu dul ne moom mii waare moo ko njëkk a mokkal kenn gënta mun a tooñ ki nga xam ne dafay oo nit ñi ci mbaax bu paree moom bu wéeteeg boppam di xeex ak yàlla ci bañ a topp ndigale mi ak bañ a bàyyi tere mi Mawlana Cheikh Ibrahim kum oo ci mbaax war nga koo mën a uyu ndax moom mbaax rek la xam ulxaamid moo ko doon wax ne ألست الذي الطاعات دان قطوفها لديه كما تنأى المعاصي المناكر du yow yaay ki nga xamante ne topp yàlla bu doon ay meññat la jege la dafay yombal nit ki mu wittu ko te loolu mooy dëgg te ci risaala ñetteel ci jawaay rasaayil dégg nga ko muy wax ne ñu bari dara yóbbuwu leen ñi dellu di di wéttalikoo am gi te am gi du dëgg lu dul géej biñ géej fi man fa law xadaru maana fi kathirin min al lanasaw taama shahawaati mu ne bu doon gaa ñi danañ lu gën a bëri ci seeni waxtu dañ koy teew ak man danañ dem ba fàtte bànneexu bakkan yi cafkam ndax moom nekk ak moom daf lay tëbb mbaax nekk ak moom daf lay tëbb teraanga nekk ak moom daf lay yombalal tegu ci yoon yàlla kon mu ne man li may xiir nit ñi mooy ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbbu te ragal yàlla bàyyi mu ne firi bi ci gën gàtt bi ci gën a boole mooy def ndigal yi bàyyi tere yi ni yàlla bëggee du yow ni ko bëggee fi zaahiri wal baatini wal ijtimaai li salawaati alxams dajaloo ngir julli julli mbooloo julli juróom ci mbooloo ku ne taalibe bàyyi nga te àggogoo ci mën a def lool dëgg-dëgg am na lu des ci sa yar ndax sa sëriñ mooy wax ne di julli ci yonent bi te mooy xaal bi gën a kawe ci xaalaan yi wax na ko xaal bi gën ci xaalaami mooy xaal bi muy tagg yenant bi wa xaalatu madxil Mustafa xayru xaalaati ci xaal boobu lay wax yenantu julli ci yonent aleyhi salaatullahi suma salaamuhu ala salawaati alxamsi dahri maa ngi julli ci yenantu bi ci barke julli gi maa ngi ciy ñaan sama giir ak dund naay sàmm wanteeg julli juróom te ñu bëri dégg nañ Oustaz Barham Diop ba muy nettali bàyyi bañ ko buggee pikiir nelawloo ko mu bañ ba docteur bi xamal ko ne ko mbi nelaw yi yàggut mu ne ko baraxam xam nga lu tax ma nangu ba ci yàgg mu bañ mu ne mu wax ci xelam ne loo nangu lu jara nangu la loo bañ nit lu jara bañ la mu ne ko dama doon bañ julli fekk ma ci nelaw yoo xamante ne maa ko tànn kon taalibe bàyyi laa julli foo problème la leneen loo ci tegati tamit foo problème la foo jëf la sax laay wax kon wal li salawaatil xams ndax bàyyi benn mag moo ne bokk na ci lu ko jës bu ci julli fajar Medina dafa eew papa dam mahmoud la sax dafa eew fajar yàlla ji mi ngi taw mu jàpp ne fajar tay bi moom kenn du julli ci waaye ba muy dox bay tolloog buntu nekk bàyyi rek lay gis baay di génn ñi ngi koy niital mu jëm jumaa ji ban ma maqaama nga mun a yegg bu baay yeggut loo mun a xam lu mu xamul loolu lépp mu ëlbatiku di sàmmanteeg farate yeeg naafil yow nga mos tay nga ne lépp ngay bàyyi jàppal ne jàpp woon ci dara ndax bàyyi li mu waxoon ne jamu shariati maa tariqati ila alxaqiqati al ura al wathiqa jàpp sharia boole kaak xaqiqa mooy buum bi dëgër bi nga xamante ne moo lay yóbbu jamoo shariati maa tariqa jàpp sharia boole kaak tariqa mooy buum bi dëgër bi nga xamante ne boo ci jàppee daan la yeggal ci xaqiqa waaye xaqiqa bu amul sharia loolu moom baatil la bàyyi nee na asluku nahja bi shariati naxwa alxaqi xalfa almasduqi wa huwa al aminu ba yegg di wax ne man ku wax ne sama taalibe nga pare nga bëgg a fooyee sharia utal beneen sëriñ bu dul man utal beneen sëriñ bu dul man ndax man xaw ma loolu te ñi ko toppoon it xamuñ loolu daf leen a xamal farata yi ba pare di leen oo ci naafile yi pour ñu sonn si yow nag ngay sonnee ci naafile te defoo farata loolu ci sàggan la bokk mu ne wal ijtimaa li salawaati alxams wa qiraatil wazifa dajaloo ngir wazifa ci mbooloo yéen ñëpp xam ngeen waxi Cheikh Tidiane bu ngeen xamoon li nekk ci wazifa ci yiw bu ngeen di raam di ñëw wazifa sax da ngeen ñëw baay foo fekk ci rasaayil yi bu diglee wasifa rek daf naan ab tiijaan daal mooy wasifakat te def ko yow kese te amoo ngant ngantal mbooloo dafa mel ni defoo ko te am na leetar bu gën a tar sax wam naan sama leetar bii ku ko gis naaw tey ومن تركها مرة واحدة بعد وصول كتابنا هذا فليس منا ولسنا منه sama leetar bi ku gis mooy mu wax ne a ngi def nangam ak nangam ak nangam teg ko ci ngant te ngant du sax te du matal ab giir tuub leen dellu ci yàlla te mu ne sama leetar bi ko jot fàddu benn yoon jàppal ne bokkutoo ci man ndax nit ñi fi mu ne dañuy expliquer bàyyi boo xam ne yow yow dafa mel ni bàyyi boobu yoonam nekku ci sharia waaye xaqiqa bi balaa mu la ci yóbbu daf laa nandal sharia ba pare asluku nahja bi shariati njëkk bi du ko teree yegg ci leen te ku réer moo jàpp ne sharia ak xaqiqa mën na gën tàggale sharia ak xaqiqa mbubb laa li ci biir léegi nga ne biir mbubb gi moom dootu du la féete du féeteeg sa yaram bi mbubb dootu fa amati asluku bi shariati door a jëm ci dëgg mi yàlla nag ànd ak gannaaw yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax jëf ju baax lu mu kawe kawe bu tegut ci yoonu yonentu bi ànd ak yéene jëf jooju dafa niil jëf balaa baax dafa fekk ne da nga koo def ci buntu yonentu bi moo tax bàyyi di wax ne moom ci yonentu la jàpp muhammadu sayyidi kanzi wa gawthi xabaani bil muraadi wa zaada mayra shifaai inda amraadi wa gaythi wa mustanadi li dahri xiina garra muhammadu midfaci wa araahu xasbi فلا زيدا ولا عمرا وبكرا نديمي سنة المختار لا لا على غير الحديث أروم خيرا سأرفعها وأقبضها جهارا على ذا فليلمني الناس طرا إذا رضي الأمين فلا أبالي أذم سواه أم أطرى وأطرى من من sama sang bi yonent bi la mooy sama ndàmbu mooy sama fetal sax bu may xeex te gis naa ne man yonentu doy na ma bu ma feebaree moo may saafara ma feebaree moo may saafara wa huwa daa'i wa dawaa'i bu ma feebaree tamit moom moo may saafarawaat di wax ne jamono lu mu waree fenn rek laay wéeru mooy ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ndaw fu dëgër moo tax waxoon na gaañ yi bañ koy noonu ne gaañ yi xam nañ ne maa leen raw waaye lii yëpp du dara xeex rek ngir xiñaan waaye nag dama am wéeruwaay mooy lan mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa wa anna ubaali warrasulu mujaawiri ida sadda arbaabu nufuusi waa ahfadu ñi nga xam ne seen bànneexu bakkan lañ topp luñ munti taral taral jëm ci man man du ma leen faral ndax yenantu bi laa wéeru yenantu bi ci yenantu bi laa weeru mooy sama tata bi nga xamante ni ba ma fa xasee dugg laa mucc moo tax mu ne muhammadu mitfaayi may na ma mooy sama fetal waaye may na ma te gis naa ne doy na ma soxlawu ma Zayd soxlawu ma Amr ak koo mën a doon rek soxlawu ndax leen laay wéttali ko mooy sunna yenentu bi te gisu ma ne yiw mi ci leneen lu dul sunna yenant bi sallallahu alayhi wa sallam sunna yenant bi nag danaa ko yëkkati danaa ko ngëb yëkkati ko ba ci kaw ba fàngaaral ñëpp gis na yëkkati naa ko bu dee yëkkati sunna yenant bi ak topp ko la may nit di meree kuy mer na nga mer ndax man bu ma amee ngër man ne yenant bi ku kontaan sa affaire la ku mer sa affaire te taalibe yi seen roykaay bu mag ñun taalibe ñu ñun ñëpp suñu roykaay bu mag mooy Baay bàyyi moo war a nekk suñu roykaay te moom lañu war a topp te ay ndigalam lañu war a topp ay tereem lañu war a bàyyi ndax loolu mooy buntu mucc ndax ci leetar bi mu ngi continué wal ijtimaa li salawaatil xamsi wa qiraati alwazifa wa dikrillaahi sirran wa jahran tudd yàlla di ko yellu ak tudd yàlla ci kaw lu mel noonu la Seydi Maamun Seck oote jotaay ne nañ zikkar o Ibrahim Ndaw ne nañu zikkaral kon mooy ne nañ tudd yàlla tudd koo sax ci mbooloo ndax zikru manshurul wilayati kenn ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko li ma faat ci lislaam moo bëri dama bëgg nga wax ma loo xamante ne mun naa cee dabalaate yonent bi ne ko salaam meñ bu mu dëñ di tooy ci tudd yàlla bañ na dof la dof kay mooy ab ab majzub waaye du xaal boo xamante ne kenn kenn war na cee sax danga koo war a dépasé te bàyyi ci loolu lay oote man damay oo nit ñi ci tudd yàlla dama leen ciy soññ Mawlana Seydi Ali Cissé di wax ne ñoom bañ demee Kaolack bees Medina bañ gàddaayee bees dañ leen doon wax seen mandarga zi tuddukati yàlla yi la tuddukati yàlla yi te ñuy woy euh, euh, Abdul Qadir Ahmad Tijaani ca Zaria boo gisee xasidaam bi mu woy bàyyi naan tara shubbaana faaniina wa bidikri muganniina wa taxsabuhum majaaniina wa hum fi rawnaqi l unsi ka anna allaha lam yudkar qubayla cheikh lam yadhar bi anna allaha qad yudkar qiyaaman duna ma labsi mu ne boo ñëwee ci bàyyi ay ndaw ngay gis ñu jeex tàkk ci yàlla di rànnanteloo tudd yàlla nga jàpp ne ay dof lañ te ñu ngi ci wéttali gu gën a màgg bi mu ne dañuy tudd yàlla ba nga defee ne njëkk ñii moom yàlla kenn mosu koo tudd sax bu dee am na ñu ko mos tudd njëkk ñoom tamit tudd ki ko xam bi ñuy am moom kenn yeggu ci mooy li Baye waxoon azkuru rabbi zikra abdin arafa waqaftu yowma thulatha bi arafa azkuru rabbi zikra abdin arafa ci ñaareelu ajam mu ne taxaw naa bési talaata ci arafa di tudd yàlla du tudd ku nekk de tudd ku xam yàlla tudd ku xam ak kuréer mi ngi mel ni nga doon nelaw ñu dugal un million sa poche te yëgoo ko nga dem marché gis soxla boo xamante ne cent franc koy faj un bi mu ngi fi teew waaye mënoo jënd luy jar cent franc ndax yëgoo ko ndax yëgoo ko loolu mooy màndargaay tudd ak ku xam ak tudd ak ku xamut bàyyi mu ne dajaloo ngir tudd yàlla ndax wàllante bi xaal bi wàllante ak yool yi nga xamante ne mu ngi wàcc ci jotaay zikkare ndax malaaka amul guddi lu dul ne ñi ngi déew ñi ngi wër di déew di jot di wër jotaay yu mel nii ينزل كل ليلة ملائكة من الأناس يبت... إلى الأناس يبتغون البركة إلى المساجد فينظرون وإن أتوا والناس يذكرون حلوا حواليها وإن وافوها معمورة بالهذر اجتووها guddi bu nekk yàlla dana yónni ay malaaka yoo xam ne ay suyaax lañ fuñ gis jotaay zikkar rek danañ ñëw toog fa fuñ ñëw nag fekk fa caaxaan foofu moom du seen place ndax ñooñ euh, ñoom dañoo yombale ndax ñoom li nit am mën a def lu baax def lu bon ñoom amuñ ko ñoom laa ya'suuna llaaha maa ci lañ nekk defal lu baax lu baax rek nuñ teggi loolu doomi aadama nag la yàlla bindee façon bind boo xamante ne bu ko neexee mu gën a baax ñëpp ulaayka hum xayrul bariyati bu ko neexee mu jugee foofu ba ci suufa suuf ulaayka hum sharrul bariyati te lu baax yombut bàyyi mi ngi koy melal ci tafsir mooy def lu baax ak def lu bon mi ngi mel ni montagne boo def ci biir teen boo ko bëggee génnee dafa laaj it dafa laaj xalaat kuñ dugal kuñ yor buum mu dugg ñu takkal ko buum mu xëcc mu génn xam nga yooyu yëpp dafa laaj protocole bu bëri waaye mu ne def lu bon ci doomi aadama mi ngi mel ni doj boobu ñu tegoon ko ci pind bi laal rek mu daanu moo tax nit du dëñ di yar ci yar bakkanam pour yegg rëj-rëjloo ak ñu baax ñu yegg ci seen xaal yi mbébét rek yeggalu ci kenn bu dee àddina rek walakin tuxadu dunia xilaaba la Omar Shawqi wax wa maa naylul mataalibi bi tamanni mu ne mbébét jotut doyut pour yegg ci say càkkuteef fekke mbébéti àddina bi rek jotut pour yegg say càkkuteef waxuma nag mbébéti nit yàlla yi am liñ amoon il faut nga sonn waaye da ngaa a toog doo def dara ba pare fu gaañi yegg da nga fa yegg loolu nax sa boobu fa la commencé bàyyi mu ne wa dicrillahi sirran wa jahran wa qiraati alqurani ak jàng alquran bi nga xam ne moom dafay ñaan ne yàlla ko yàlla def karaamam بليلها أتلوه بجهل وخفية dawaaman wa mislu lyawmi fi daaka layluhu jàng alquran guddeeg bëccëg jàng ko heure bu nekk ba nga xam ne wax na sax ci bayaan wa tabiin ne war na ab taalibe tijaan ala tijaani an yakuna kasira silati bilqurani qawiya silati bilqurani taalibe tijaan dafa war a am jokkoo bu rafet ak alquran war naa am relation bu rafet ak alquran di ko jàng bët bu set kem mokkalam ku mën a jàng suba nga def ko lu gën a tuuti war ngaa jàng ñaari xisib wala nga jàng ay aaya ngir barkeelu wa qiraati alqurani wal amali bi kasbi alxalaali ak liggéey ngir fàgg lu dagan loo dundalee sa njaboot mu man Cheikh Ibrahim fa man imtathala amri فلا يشتغل إلا بهذا ومن لم يمتثل أمري فما أنا بصاحب سيف وما على الرسول إلا البلاغ المبين mu ne man Cheikh Ibrahim ku dégg samay ndigal te lu baax rek lay digle fala yastaxilu illa bi hada lii rek lay ittewoo mooy lépp lu baax ak lu lay baaxal mu ne ku toppul sama ndigal nag mu ne man du ma boroomu jaase boo xam ne dama naan laan defal nga def boo deful ma rey la moom nasiha moo ko war nasiham def na ko te yii yëpp boo xoolee moom amu ci dara lépp mooy nit ñi tegu ci yoonu njub loolu la doon ñaan daawtu rabbi an yaumma hadyi kullal wara wa yaxmaduna saayi maa ngi ñaan sama borom njub gi nekk ci man mu matale mbooleem mbindeef yi te sant jëf ji ma def ba yegg ci loolu te jëf jooj ma ne da koo ñaan waaye ba mu yeggee ci dox pour nit ñi yegg ci def lu baax dafa dox li wax fale ci Konaakiri nafsul muluki xaalatul miskini lakinani ashku liman yushkini yuxyi biya diina fa daa yuxyini wa min cuyubi nafsi ti yunjini falam amin li camalin yuqsini أخطأ من في زمني يعصيني فأحيي بالعلم وأحيي ديني في زمني بالرشد والتمكين بيمن أفضل الورى ياسيني عليه صلى الله كل حين mu ne bakkanu buur la amee waaye xaalaay miskin la yore waaye mi ngi jàmbatal ki nga xamante ne moo ko mën a dindil li muy tawat muy yàlla yuxyi bi diina yàlla na yàlla dundalee diine ji ci man ndax fa daa yuxyi ni bàyyi nit ñi tegu ci yoonu yonentu yàlla Muhammad rek moo koy dundal wax na ne ci benn leetar ne li gën a màgg sama fay ci yéen mooy an takunu lillaahi ngeen nekkal yàlla man loolu mooy fay fay sama yéen mooy sama fay ci yéen fekkee mun leen nekkal yàlla man soxlawu ma fay soxlawu ma ci yéen fay yuxyi bi diina fa daa yuxyini wa min uyubi nafsi tiyin jiini yàlla musal ma ci sama sama ayibu bakkan bi ndax falam falam amil li amalin yuqsini yàlla bu ma jëng jëm ci jëf joo xamante ni daf may soril pay yàlla bi jëf joo xam ne daf may soril yàlla bi yàlla bu ma ko jëf mu ne yàlla bu ma jëf jëf joo xam ne daf may soril pay yàlla bi te pay yàlla bi lii soril jaam pe yàlla bi mooy mu ñàkkee teggin pe yàlla bi Mawlana Cheikh Ibrahim wax na ne mu ne jaam ab jaam maqaama bu la yàlla mun munti may ak loo ti jege yàlla heure bu nekk war ngaa góorlu di tegginoog yàlla ndax pay yàlla bi képp ku fa nekk ñàkkee teggin yàlla yàlla dana la dana la yóbbu ci pay bu sori te mu ne nag yoon yi sufiyanke yoon yooni tariqa yi ba muy sosu ba tey ay góor ñàkkee nañ teggin yàlla yàlla far leen ci pay bi kon yàlla na yàlla musal ci bànneexu bakkan yi ba bul def yow taalibe bi loo xamante ne daf lay yeggale ci loo xam ne daf lay soril pay yàlla bi waaye mu ne mu wax benn wax bu daw yaram mooy axtaa man fi zamani yaasini ku ma mooy ci sama jamono kooku dafa juum dafa juum ndax lan moom lim namu ci yow mooy li yàlla namu ci yow walummatu qasdi fihimu an asuuqahum إلى حضرة البر الرحيم إلهنا فتعلم هل في الخلق أحنا عليهم مدى الدهر مني والبعيد كمن دنا benn mbébét la am ci xeeti yonentu yàlla muhammadin mooy góorgóorlu ba yëggale leen ci yàlla te loolu li fekk amut moom soxlawul noppal wax na ko ci akaraat takuraat yi xaal bi mu fa gis nit ñi nuñ dëddoo yàlla niñ bañee topp yoonu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñii daal liñ mel nii dafa mel ni kenn mosu leen oo sax ci yàlla lakin ankara ila takuraadi ma balagathum daawatun min haadi sa'altu rabbi wa huwa xayru mujzili يفتحها بمدفعي ومقولي سألت ربي أن ينيل مقصدي حتى أرى كل القرون تهتدي فلا أنال راحة لقلبي وفي البسيطة يعاصى ربي لا سيما الإفريقي الغربي هداهم للملة المرضية mais dafa mel ni Accra ak Takora di ab jubalekat moom mosu fee jaar waaye maa ngi ñaan yàlla nga xamante ni mooy kii bëril may yi yàlla ubbiko ko sama kënu bi muy fayda tijaniya wa midfau cheikhi anil fayda min buudin yarmi ci sama kënu bi ak sama làmmiñ làmmiñ boobu nga xam ne lu baax rek la ciy wax te lu mu ci wax rek dëgg la in qaala qaala sawaaban kulluhu xikamu aw xata zaala alxitaaf alhamdulilahi bu waxee wax ji lépp njub la njëriñ la bu bindee tamit lépp lu doon lëntal nit ñi rek yëkkati na ko mu ne maa ngi ñaan yàlla may ma sama càkkutéef ba ma gis maas gi yëpp ñi tegu ci yoonu njub ndax man Cheikh Ibrahim parewuma noppalu te fekk na am na kuy mooy yàlla ci kaw suuf rawatina nag waa Afrique te loolu lépp yoon bi muy jaar mooy ñeent yi nga xamante ne ñooy gàllankoor doomi aadama ba du yegg ci loolu lay jéem a saafara ci yow pour yeggaleel la ci moom xaal bi mu ne mooy doomi aadama bi fexe ba saafara ci bakkanam baay wax na ci bakkan ne makaiduha la tantahi wa xidaacuha yuxassinu afcaali alqabixati xukmuha wa axbathu ma fiha la amriya xirsuha ala hadi dunya daniyati shumuha mu ne bakkan ay pexe moom duñ jeex bu mu nas rek bu sottiwul mu nasaat beneen wareem noonu te bokk na ci wareem mooy mu fekk la nga nekk ci lu ñaaw mu bugg laa dëgëral ci loolu kam xasanat laddatan lilmari qatilatan min xaytu lam yadri anna summa fi ddasami waxsha dasaa'isa min juuin wa min shiba'in fa rubba maxmasatin charrun min attuxami yim lay oo yëpp moom bakkan bi daf la koy rafetalal mu mel ni dëgg la te fekk na loolu ay naxee mbaay la foofu la poson bi nekk foofu lay jaar pour rey la bàyyi mu ne wa axbathu ma fiha la amriya xirsuha ala hadi dunia daniati li gën a ñaaw li nekk ci pexe bakkan yi mooy xër bi mu xër ci àddina te àddina mu ne lu doyadi la yàlla wax na ko alquran waxati ko waxati ko mataaun xalil ku ci jàpp ba jàpp ne jàpp nga ko fekk ne jàppoo dara ndax lu mu bari bari fi ngay dem bàyyi ko bàyyi daf lay jéem a tàggaleeg sa bakkan bi njëkk nga gis moom sax bu koy ñaanal boppam kii ñun lay ñaanal rek wan nafsa sunaha anil afaati yallaahu mu wax ci ataytu baaba ilahi al arshi multabisan bakkan bi yàlla nga ko sàmm walis gàkk-gàkk yépp ndax bakkan bi gàkk-gàkk yi ci nekk ñoo bari te pour jaam bi dugg ci pay yàlla bi il faut dafa laabal bakkan bi ba pare ndax ku tilim te laaboo mënoo dugg ci pay yàlla bi ixlaa na alayka bi bilwaadi almuqaddasi tuwa pay yàlla boobu ku fa mën a yegg il faut sa bakkan bi saafaroo te bakkan bi balaa saafaroo da nga koo gisatut wa nafsuka min jumlati mu ne sa bakkan bi sax ci mbindee fii la bokk balaa nga fay yegg da koo faar ba pare xadratul qudsi inda maxqi siwaaha la siwaaha yaa man yarumu liqaaha saafarawu ci bakkan bi saafarawu ci àddina ba nga xam ne am ak ñàkk day yem am ñàkk day yem bàyyi bu la saafaraa ci àddina saafara la ci àddina ci àddina saafara ci bakkan bi saafara ci àddina bi nga xam ne lu mu bari lu tuuti la وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت dayoog àddina boo ko xalaatee dëgg day mel ni ker bu fi naaj ker bu fi bëccëg bàyyi léegi mu dem yoonam wala mu mel ni gént boo géntoom ba jeexee rek la jeex saafara la ci bànneexu bakkan bi ndax topp bànneexu bakkan yi mooy dëggantaanu doyati inna al لهو الهوان بعينه وصريع كل هوان صريع هوان كتب بانيخو bànneexu بندر ملكو bañ دغ دغ كوك موي كو دايتي تا ku jox sa bakkan mu lay omat du la yóbbee fu gën ci yow waaye mu ne mu saafara la ci bànneexu bakkan yi loolu lépp bu ci jaam bi saafaroo mooy ne ubbil na boppam bunt bu yaatu pour dugg ci pay yàlla bi waaye ubbil na boppam buntu mbaax ubbil na boppam buntu topp yàlla ba loolu bakkan bi saafaraw def farata yi matal ko moo lay yóbbu nga jël tariqa tijaniya bi nga xamante ni lépp yiw la naju tijaniyat almuthla huwa arrachadu huwa alsiraatu alladi ma massahu awadu dikru alilahi walistigfaaru danihuma nafsu tariqati hal yaaruhuma fanadu aw alsalaatu allati agra annabiyu biha nassan ونص عليها الواحد الأحد هذه لعمرك أركان الطريقة لا زيد ولا نقص وهي الدين والرشد yooni Cheikh Tidiane bu jub boobu nga xamante ni mooy yooni njub dëggantaan bu amul benn dëng-dëng mooy yoon bu amul benn dëng-dëng yoon bi lan la dikrul ilahi yaa ayyuha alladina amanu udkuru llaha dikran kathiran wala dikrullahi akbar lu gën a màgg tudd yàlla amut wal istigfaaru jéggalu yàlla fa qultu staxfiru rabbakum innahu kaana gaffaaran bu du dara sax nga jéggalu yàlla jublu ci sax xéewal yim la war a indil baax na ku nekk ak sa yéene yursili sama aleykum midraaran fu asamaan si tag rek dafa fekk wal istigfaaru loolu mooy tariqa tijaaniya fa maa fiihi dikru cheikhi aw dikru gayrihi fa nahjun yunaawi dikra nahju shaqaayi ruwaydakum laa tunkiru an jahalatin li bagyin wa udwanin wa ayni jafaayi Cheikh Tidiane li ñu koy bëgg-bëgg amul heure boo xamante ne yaa Cheikh Tidiane la ñuy wér yonent bi noonu yàlla lañuy oo di julli ci yonent bi te xam nañ lottu biñ ci lottu moo tax ñu dénk ko yàlla allahumma la ñuy wax salli wala ci julli ci yonent bi nga xamante ne yonent bi xirtal na ci nit ñi ku gën a nay mooy kuñ tudd yonent sa kanam te julli woo ci moom te bàyyi ne man bëril julli bi may bëril julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu laa rawee ci sa bëbëb loolu moom ci sa bëb yi ci sa bëb yi bàyyi moom ba muy raw loolu moom waaye daal jàppal ne moo ne bi kasrati taslimi ala al mustafa fuxtu maa ngi kawe raw ci bëreel julli yi may julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu ataillah sakandari mu ne xéewal bi am ci julli yenentu bi kenn xamul nu mu ndax moom rek mooy li nga xam ne yenentu bi nee na ku julli ci man benn yàlla julli ci yow fukk mu ne yàlla bu jullee ci yow benn fegal la xay àddina fegal la xay alaxira fa kayfa bu jullee ci yow fukk mu ne lii mooy tariqa tijaniya la zaydun wala naqsun yokkuñ ci leen wàññiwuñ ci leen te loolu mooy njub ay niir tawu niir la yoo xamante ni xol yi jaamu yàlla yi lay taw te lim fay saxal mooy maarifatu billahi tabaraka wa taala boo saafarawoo ci yooyu ba yegg ci jël tariqa tijaaniya soobu nga defaat leneen nag dox ngir yegg ci bëgg namu namu bi yàlla am ci yow mooy muxlisina lahu diina xunafa wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu diina xunafa yegg ci ixlaas boobu nga xamante ni day dugg ci xaqiqat xam yàlla yegg ci yàlla ngir li yàlla tax yàlla bindi jaami yàlla bu la xiiree ci loolu ba may la nga jàpp ci ku mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim ngay dox ba am jës bu ba gisatoo am ak leneen lu dul yàlla ngeen la gannaaw loolu na nga delluwaat di jëf jëfi sharia yi boolekaak seede am ak yàlla te gisoo leneen lu dul yàlla xam ne loolu mooy mat te leneen lu dul loolu rek ak lu ko waa ji mën di tuddee rek bu ko tuddee baatin tamit baatin boo ñëwee ba nag sa bakkan bi xiir la ci ut yàlla nga jàpp ci ku mel ni baay boo gisuut baay yàlla xiir la nga jàpp ci ku mel ni taaliba baay ndax ku ni baay moom amut ku nangoo nax sa bopp wala nga nangoo ñi nax la rek waaye lu Abdullah bin Sayd waxoon ne wa axmaqu xalqillaahi man danna aw ra aw man wa axmaqu xalqillaahi man danna raa laka ashbahan ala al ardi wa sama alal ardi aw ak fa mu nekkoo ko daal bàyyi daal man gis naa ne daal ndox daal mooy nit koo xamante ne dafa jàpp ne ne kii mooy yow dëggantaan waaye ku niru niru lu bàyyi sëriñ bi nee na boo nekkul bàyyi tamit danga doon lu ñu xam te ñuy niru niru lu bàyyi mooy ñu bëgg a baax xam nga xasida Ahmad Mahmoud ba mu nankaan ba muy laaj yaa badru commencé ci weer wi yaa yaa nangam laaj ko laaj ko laaj ko laaj ko yonentu yi ba waaye tudd yonentu yàlla Muhammad dégg nga ko fa hal raayta ka mithli ndax mus ngaa gis ku melokaanoo ni melokaan yi bàyyi aw hal raayta lahu yaa badur min raay bàyyil waxuma ndax gis nga ku mel ni baay ndax gis nga ko mus a gis ku mel ni bàyyi sëriñ mu ne moom moo ci yokk ne weer dafa gàgg bàyyi boobu bu la ko yàlla mayee ba nga téyee ci moom dootoo téyeetu lu mel noonu dootoo amati ku mel noonu dootoo gisati ku mel noonu nim la gënalee lu ne nag ay jëfam war na laa gënal jëfi ku ne ay waxam war laa gënal waxi ku ne ay tànnam war laa gënal tànni ku ne ay xaalam gën laa war laa gënal xaali ku ne ay jàngalem war laa gënal jàngale ku ne ndax lu dul lool rek mbëggeel bi dëggoogut yow nga bëgg benn jour sax booy dox di dox ni muy doxe ba boo bëggee sol moyen sax ah euh, nu jour bi di ko solee doon nga ko bëgg a solee am na ñoo xam ne ngay gis ñu sol moyen ñaari moyen longue marche dañuy wàccee benn bi ndax Daniel Doris rek lañ bëgg ndax moom benn loxo bi du kii rek ñu bugg koo defee noonu am ñeneen niti àdduna yoo xam ne boo leen bëggee nu ñuy soloo nga ngay soloo nu ñuy waxee ngay waxee ba sax ñi lay jaawaleeg ñooñ nga bëgg ku mel ni bàyyi nga xamante ne doo dajee waat ak ku amee matam gi mu am lu mu tànn nga war a wan loolu gannaaw loolu du ñàkk xel de loolu ñàkk chance la yal nañu yàlla musal ci loolu sax ban fudala wa xir lii min kulli shay'in xayrahu wa kun lii yàlla defar mbiram ba mat def la taalibe baay nga bugg a ut leneen teg ko ci place boobu place boobu kenn du ko feesaat te baay moom ba nga ñëwee di ut yàlla ci moom daf laa dénk usika ya majzubu an laa turxila xawaatiran illa ila xaqin ala laa tarxalan min adamin li adami fa inna daaka filu majnunin amin فإنما ذا العالم السفلي طرا كذاك العالم العلوي ما فيه من نفع ولا ضرر لقي المؤثر بترك الأثر عليك بالله فلا تشتغلي بما سواه إن ذا تقوى الولي da ngaa dem ba àgg ci xaala jazb mu ne maa ngi lay dénk yow majzub bi yow yow majzub bi lay dénk mooy sa xaatir fexeel boobu ko dawal jëmale ko ci leneen lu dul yàlla bul jugee ci ñàkk dellu ci ñàkk li bàyyi waxoon maa ngi jugee xar maa ngi jugee xartoom waaye fii nadari mawjudu kal maadumi maa ngi gis li am de waaye comme lu ñàkk ndax amul ci dëggantaan mu ne loolu mooy jëfi dof jugee ci lu ñàkk dellu ci lu ñàkk ah déedéet boo jugee ci lu ñàkk kay da ngay dellu ci ko am da ngay dellu ci ci lu am te li am dëggantaan yàlla rek la fa inna daaka filu majnunin ami jëfu dof la waaye dof bu gumba fa inna daaka filu majnunin ami bay jàngale laa tarxalan min adamin li adamin fa inna daaka fi'lu majnunin ami di wax ne ragalal yàlla alayka billahi fala tastaxili bi ma siwaahu dëggantaan ragal yàlla mooy bul utteewoo leneen lu dul yàlla qulillah summa darhum fi xawdihim yalabun te bàyyi wax na ne boo xoolee dëggantaan da nga gis ne keneen ku fi soppandiku ku dul yàlla newu fi wala taxsha gayra allahi laysa li gayrihi istiraafun fa lilfaali qalbaka jamii in lam tajid illa al ilaha muharrikan wala sakinan talqa al jamala bi ajmain mu ne bul ragal ku yàlla ndax keneen ku yàlla mënut a soppandiku lu ma laaj Abdoulaye wax ñu ne maama laaj Abdoulaye moo daan wax ne yàlla du paateeg dem ba kenn ba koo bëgg mu rek mu alako waaye léegi nag da ngay bëgg def benn programme ñee la programme bi boo ko defee waa ji lii la lay def xanaa waa mooy yàlla ragal ci yab yàlla la bokk li lu dal nit ñi mooy li yàlla li yàlla namm ci ñoom ak sabab yoo munti jël nag munoo fexe ba amal lu amut munoo fexe ba ñàkkal lu am ak ku mun a doon nag man a jàpp naa ne taalibe Baay nit nit nit bu nit bu xam yàlla sax taalibe Baay warta ragal waxuma la ak nag waaye fexeel ba booy ñemee nga ñeme ci dëgg waaye boo demee ba yegg tamit nga bàyyi xel li Baay woxoon ci tafsir ne kuy ragal na nga ragal yàlla ndax mbugalam dafa tar nga ragal ku ragal yàlla ndax ñaanam nga ragal ku ragalul yàlla ndax réyut a def dara mooy boo tooñee waaye ku nekk ci dëgg ku nekk ci dëgg wàlliwu lu màgg-màgg mënu laa may barke te liggéeyaloo ko mënu sëlbu te tooñoo ak lu màgg-màgg nag mu nekk kon nag laysa li gayrihi dañ lay dënk ne la defar rek yàllaa lay dénk bu ko neexee mu folli la mënoo ci dara kon utal yàlla boo demee ba gisee dara nekkatu fi lu dul yàlla loolu fatixu la waaye loolu doyut gannaaw loolu nag nga dox doxi góor ñi te bàyyi mu ne man ñun ay góori dëgg lañ duñ ay jigéen duñ ay xale yu ndaw ku ànd ak ñun ci luñ nekk ñu ngi lay tatagal ci ñun ku munta ànd ak ñun ci luñ nekk maa ngi lay wax li xadir waxoon ne hada firaqu bayni wa baynak boo doxee foofu yegg ci am jës bu dox ci yàlla boo paree loolu ngeen la bàyyi na la doy misaal mooy ne yii ñëpp yi nit ñi di dox yi xamal ñëpp ba mu ko xamee terewu ko def dara li li Busayri waxee woon sëriñam ne xad naa la gaayata ma yaruumul muntahi min rabbihi te nag ànd ak loolu lépp wala ijtihaadul mubtadi gaa ñi ne dajal nañ lañ am ca yàlla mu ne sama sëriñ am na ko te tey boo gisee muy nu muy góorgóorloo ci mbir yi da ngay jàpp na tey la door a commencé ku bëgg mat lu gën a mat ngay topp kon yàlla nañu yàlla topp loo bàyyi ñu xam ne yoon bi dafa leer ñu mun a yar bakkan yi ba mun koo topp gis nga nit ñi ni ñuy jullee ba pare di ñaan allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ak beneen ñaan di ñaan yàlla allahumma a'inni ala zikrika dimbale ma ci tudd la wa shukrika ak sant la wa xusni ibadatika ak ak rafetal jaamu la nit ñi dañ ciy war di yokku tamit loo ñaan rek nga ñaanal si ak bëgg baay ndax am na yu bari yoo xam ne wallaay ñàkk bëgg baay moo ko waral waaye nit nit bu bëggee baay am na yoo xamante ne war warta dem ci xaatiram sax mu koy def waxuma nag mu koy askanee baay loolu moom repp moom gënu koo màgg repp gënu koo màgg yàlla may ñu yar bakkan yi li bàyyi waxoon ne fa hadibu nufuusa wal axlaaqa kay tasuunu sirra wal azwaaqa tuwaafiqu al akfaa wal ashkaala fal amru waadixun moo tax ma bugg a dajale lu lu loo xamante ne dama ciy dajale ay xadis yu wér yenn xadis yu wér ci yenantu bi ak saxaabaam ak ñoñam comme ni ma yàlla ubbilee ci mbir yi ak li ma óor ne lii mooy dëgg fa yàlla te boo yeggee mu xamal la yoo xam ne boo ko xamee loo ciy teg rek mooy màggal yonentu heure bu nekk mooy li mu waxoon ndi mu waxoon ne falaw alima al aqwaamu maana muhammadin xaqiqata ilmin azzamuhu wa majjadu nit ñi bu xamoon maanaa muhammad dëggantaan danañ ko màggal danañ ko yëkkati xalaftu yaminan innahu dahra mufradun fala yataattaa an yusanna bi taarifi wa inna li kulli l ambiyaai xawaariqan min al mustafa qad xaazaha kullu xaarifi wa hum kulluhum gurrun saraatun ajillatun waaye nag wa maa kabni abdillahi inda tawaa'ifi fa muusa wa ibrahimu maa najli maryamin lahum rutbatun wal kullu amnun li xaa'ifi walakinama almuxtaaru arfacu mansiban fa minhu manaalu alaqdamina alxataarifi mu ne maa ngi waat yàlla ne yenentum diir ak jamono kenn la mënta ne du jàppandi kuy ñëwaat toll ni moom màggaay yenant bi nag ak feeñuwaay màggaay bi mën nañoo ute màggaay yenant bi ak feeñuwaay màggaay bi mën nañoo ute lekk ak jeexitalu lekk mën nañu ute waaye doo jàpp jeexital bi baay fi lekk bi jeexital bi mooy suur boo suuree mënatul ci dara mu ne mbooleem yenentu yi am nañ ay kawteef ay xarbaax waaye ñoom ñëpp ci yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jëlee ñoom ñëpp ay sang lañ ay ñu kawelañ waaye ku ni doomi abdullahi bi moom newut seen biir muusa ibrahim isa am nañ ay rutuba de ay ay ay dayo kenn ku nekk ci ñoom doy na kóolute pour ku ragal waaye ku mel ni yenentu bi sallallahu alayhi ni mu yëkkati ko ci dayo lu mel noonu amul yàlla moom la jaaralee seen am ñëpp waaye ñu xam yëpp moo leen may ci xamam la leen yàlla xamalee kon bu ñuy waajal gàmmu yonent bi sallallahu alayhi wasallam war nañ ko waajal ci tagg ko ndax tagg yonent bi li ci nekk ci ay jagle bàyyi wax na ne walam arju illa anna ahmada shafi'un liman qaala shatran fi sanaahu wa ma amil fa in lam yakun qad saxa anka laqad jara bihi mathalun wal urbu ma gayyaru al mathal yaakaaruma lu dul ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana rambu ku ko woy donte benn chatar la am na ci borom xam-xam yi ku mel ni Seydi Yadaali ba muy firi xasidaam salaatu rabbi nee na jëf ju gën a màgg ci jëf yi mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xadis bi ñu wax ne yonentoo ko wax ne ku ma taggee benn bayit ma rambu la bés penc wa maadixul Mustafa bi wa maadixul nabi bi baytin kaana lahu shafian fi ljinaani baana wa fi shafaati istiwaau man xakaa wa munshiul bayti saljamani yu xaka ku taggee yenentu benn bayt yàlla yenentu bi ramb la bas penc mu ne waaye noonu la emoo ki ko tagg ak ki nga xamante ne mooy jàng tagg yi tamit dugg na ci xaal boobu noonu kon ni ñu koy waajalee euh, tagg yenentu sallallahu alayhi wa sallam waaye waajalee ko julli ci yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam bëril ko lu bàyyi waxoon ne usikum maashira al aqraani bis sabri wa safxi an al ixwaani بالقيل والقال فلا تشتغلوا وبصلاة الفاتح القلب اشغلوا ولتعلموا بأن ما يشاء إلهنا يكون لا تشاء mu ne yéen maas gi maa ngi leen dénk ne muñ muñ ba def ndigal yi muñ ba bàyyi tere yi muñ ba nangu jafe-jafe jamono yi ak jéggale mbokk yi ndax ku ànd ak nit ñi ne kenn du la tooñ da nga des ak sa bopp ku ànd ak nit ñi ne kenn du la tooñ da ngay des sa bopp ndax ni ñi moom tooñ moom ci seen aada la bokk nga ànd ñoom di muñ seen tooñ yi nag jaxasook ñoom di muñ moo gën dem wéet yow kese bil xiili wal xaali fala tastaxilu wax yu am solo bu leen ko ittewoo wax yoo xamante ne du leen bijjal dara du leen yokk njëriñ bu leen ko ittewoo waaye nag wa bi salaati lfatixi l qalba shagalu na fexe ba xol bi ngeen soxlaale salaatu ala nabi julli ci salaatul fatiha bi nga xamante ne dayoom amaana xajut ci xelu ñu bëri ndax xel la ñuy nattee te yàlla mbira mi ci ngëneel la daalika fadlullahi yutihi man yasha yàlla nañu yàlla def ay taalibe baay dëgg-dëgg ngi nuyu suñu nijaay cheikh ibrahim ibn cheikh mohamad al mamoun ko tatagal ci jotaay bi nga xam ne ndollal la bu ñu yàlla may waaye di nuyu suñu nijaay cheikh maam alhaaj muntaqa bi nga xam ne beneen ndollal la jotaay bi lépp yëkkatiku na lépp rafet na ndax yàlla indi na fi njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim mi nga xam ne ah, ay jubalekat lañ yakunu biha biha yakunu nasli hudatan wa aliya ñaanoon na ne samay njaboot yàlla nañ nekk ñu jub ba pare di jubale ci yàlla ñii ñëpp ci loolu lañ nekk ci seeni xaal yàlla na ko yàlla gën a dëggal te gën koo dëgëral yàlla méngoo mbooloo mi méngoo leen ci zaahir méngoo leen ci baatin yokku ñu yokkute boo xamante ne wàññeeku du ci topp gannaaw mukk Seydi Mamoun Seck ñu ngi koy gërëm ci lii di ko ñaanal yàlla moom it yàlla méngoo ay mbiram ci zaahir rek ci baatin jotal ko ay càkkutéefam yàlla tàggat ñu ñu ñëpp ci topp yoon bi nga xamante ne mooy yoon yi Mawlana Cheikh lu lu baax nit ñi nu ñuy ñaanee soxla àddina yi di ci sonn di ci ñaanlu lu baax tamit noonu la ko nit war di ñaanee ba pare di ci ñaanlu di ci sonn gis nga bàyyi naan wa an tuyassira li taati ajmaaha wa an wa an tuyassira li taati ajmaaha wa an tuassira lil asyaana yallaahu wa an tuxalliqana axlaaqa walidina yallaahu yaa xaaliqa al axlaaq yallaahu dëggantaan loolu ñaan boobu ku ne war nga di xalaat ku la doy ngay ñaan mel ni moom bàyyi ne yàlla nañ yàlla yombalal mbooleem jëfi topp yi waaye mbooleem jëfi safaan yi yàlla nañ ko yàlla jafeel waaye yàlla nañ yàlla jikoloo suñ jiko bàyyi moom alxaaji abdullahi yow mi nga xamante ne yaa bindi jiko yi ku ne mu nga di xëy di ñaan yàlla ma yàlla may jikko Baay Ñas loolu ku ko am texeen ak ku la doy koo xam ne gëm nga ne jikkoom waaye daal ku doy ni moom yal na yàlla dafay dëgg dëggan taale bay ya rabbi bil daati wa bis sifaati fa kun lana fi saa'iri l-haalaati thabbit qulubana ala l-iimaani والتجنا لعمل الإحسان بجاه رسول الله وصحبه جملة فنفس كروبي نفس الكرب نفسها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sëñ sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñu ngi nuyu sëriñ bi kilifa ak jotaay bi Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Mahamadul Mamoun ibnu Cheikh Ibrahim Niass xaadimu saaxibul fayda tijaani ñu ngi koy nuyu di nuyu suñu doomi sëriñ Cheikh Abdullahi ibnu Cheikh Mahamadul Aqib Cheikh Ibrahim Niass waaye di nuyu Cheikh Ibrahima Cissé jalaalu diin nuyu Cheikh Ibrahim Niass suñ mag Baye Mahmoud Cheikh Ousseynou Niass Cheikh Alhaji Abdoulaye Niass ak mboolem kilifa yi fi teew ñu nuyu Chérif Mouhamadou Moustapha waaye di nuyu mboolem soppi yi ñu nuyu Cheikh Ibrahim Ndaw di jagleel nuyoo Cheikh Mamoun Seck mi nga xam ne moo woote jotaay bi waajal gàmm dëgg-dëgg ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ñu fi def rek yàlla na ko yàlla nangu ci barke yonent a sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba sëriñ ci kàddu yu fasaxa yi mu wax loolu rek doy kon dañuy jox sëriñ bi rek ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ñaan nangu wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu ñu ngi sant yàlla ci sang bu tedd bi muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di gërëm waaye di gërëm cheikhana wa mawlana sahibul faja tijaaniya ñi nga xam ni amul kem min al azali ila al abad ci bëgg yàlla ak xam ko tabaraka wa taala ak xamle ko ci bëgg yonantu sallallahu alayhi wa sallam ak donn ko ak xam ko ak xamle ko ci bëgg cheikhu tijaani radiallahu anhu ak xam ko ak xamle ko ak donn ko muy mawlana cheikh ibrahima ñas radiallahu anhu maanaam Cheikh Ibrahim mi waxoon ne udriku man mada fuutu man baqa wa inta sabaqa rijaalu ñi nga xam ne woy nañ yépp jot naa leen ñi nga xam ne ñoo des ñenn ñi romb naa leen góor yi yàlla yëpp buñ dajee man maay raw maay jël première loolu nag wax la joo xam ne dafa ëmb waxu zaahir ak baatin ak baatinu baatin ak la ci gannaaw loolu ngir màggaayu bu bu tuunu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci tegginu shariatu képp koo xam ne nii wayoon na rek jot naa la loolu la ñuy doyee doom ju baax loolu mooy doom ji gën yonentu bi sallallahu alayhi wa yàlla daf ko yebal daf ko muy royteef ñeel ñun lépp lu yonentu bi wane jàngale ko rek jullit war naa mën a àgg foofu fa mu àggale woon Seydina Babacar Siddiq àggale fa Seydina Omar ibn Khattab àggale fa Seydina Ousmane ibn Affan àggale fa Seydina Ali Fatimatu Zahra ak Xasan ak mbooleem saxaabaam yi kuy jullit ku nekk rek loolu ndono la ci yow moo tax ñu war a yokk ittee kon bàyyi ba ne udriku man ma daa dale ko ci saxaaba yi ba jamono jot naa leen boo ci boolee baateen sax yonent yëpp àgg naa bu ci parce que ma ko waxal àgg na ci tefes gi ba ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fàttat na nubuwatu nubuwatu weesu na saxaaba yi nag ngir tegginal ko man dama laa romb man wéy di dem waaye nag mu waxay beneen lisaan nag ne su ñëpp da góor yàlla yi moom boo ne rijaalu lay rek inte saabaka rijaalu way njëkk ak way mujj yëpp ay góor yàlla lañ rijaalun sadaqu ma ahadullahi alayhi wa minhum man qataa nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila ñu ñëpp nag bu buñ dajee man maa leen di raw kon kan mooy Cheikh Ibrahim radiallahu anhu kon foofu rek laay tënk wax ji ndax dama fi fekk jotaay boo xam ne jotaay xam la dama fi fekk jotaay boo xam ne jotaay leer la dama fi fekk jotaay boo xam ne jotaay taalibe yoo xam ne yàlla kese moo tax ñu dajee fii te yàlla weesu na kese ndax lu dul yàlla rek kese nga neen nga li ma fi jaarloo dama romb rek ndax su fekkee ne ñu yees ñi nga xam ne majlis zikr taxu leen a ñu mel ni man bu ñu rombee sax ba malaaka yi bu ñuy def rapport ñu ne ñoo ngi dañoo romboon waaye si kasi taxu leen a ñu ni ñu baala dañ leen di baalaale kon ñëw naa ci jotaay boo xam ne nii ah baal nañ ñu fi nekk amaan nañu baalaale ma ma fekk fi nag samay soppee sëriñ samay njabooti sëriñ samay wëllëre ay ndaw yoo xam ne man dama leen di sante yàlla di leen tiitaroo nga fekk Cheikh Ibrahim Jalaalu Diin doomi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ali Cissé di Abdou di Cheikh Ibrahim suñu wëllëre di suñ kilifa di suñu imaam di soppe bu mag fekk ko fi muy wax xam-xam boo xam ne macha allah daf ko jàng xam ko ba pare di ko dundu ndaw yi di ko déglu mag ñi di ko déglu jigéen ñi di ko déglu kon loolu bugguma cee tegaat dara kadalika tam cheikh maam alxaaji moom di doom di rak di soppe di kilifa ndaw la waaye bàyyi dafa wax ne képp ku dem ba nga xam ne nii nekk nga jullit am yurdo tijaan waratoo def sa bopp ngay gone te xale buy mag maglu rek mag nga mbir yi kenn moomu ko yàllaa ko moom mbir yi amul sant amul kóllëre amul dara lu may li bàyyi ne yàlla amul doom amul lu may ay xarit rek la am waaw buntu xarit nag ubbil na ko ñëpp amul ko sant lii wala ko sant laa ku juble yàlla rek yàlla jublu la ku wan yàlla gannaaw ku la mën a jur yàlla wan la gannaaw sëñ bi wax na léegi ne bàyyi ñaan na njabootam ñu nekk ñuy jub te jubale njabootam nag njaboot ak deret gi ak njabooti maanaa gi yëpp la kon Cheikh Mame Alhaji rafetlu nañ kàddu yi waaye tamit suñu rakk suñu soppe Cheikh Abdallah nga xam ne moom it kilifa borom ëdëb la borom maarifa la borom xam-xam la liggéeyal na baayam baayam gërëm ko jëlaat na kàddu gi delloo ko jaam su xeebu si kon daal su taxatoo nag li nga wax rek ne war naa wax waaye naru moon a wax waaye nag waxuma kii wax antaqa kulla shay'in kooku mooy wax ñuy gërëm Cheikh moom mi nga xamee nag ne alquran dafa wax ne afalaa yatadabbaruuna alquran am alaa qulubin aqfaaluhaa dafa xool xool bu ñu ko mën a wax ñii dañ doon déglu alxuraan te bi may waxee man boobu yàlla ngay junj xóotaayu maarifatu billah te nga waaye mu ne wala seen xol yi dafa am xomb ci nekk yoo xam ne dañ koo caabi loolu du charia rek charia la bu ëmb tariq ëmb xaqiq kon nag su ñuy bàyyi ñëwalee ci jamono muhaadar bi wala muhaddis bi aalim bi jalaaluddin wax na ko ci biir waxam ku benn bàyyi ku ko séen tam da ngay sonn sa bopp rek waaye melo melo la rek mu làmboo ci leer yi nga xam ne moom la ko yàlla jagleel nga xam ne du dañ mukk ba pincam yàlla kon ñu ngi sant yàlla ci jotaay bi te nuyu sëñ Mamoun Seck bu baax di la nuyu yow suñu soppe bi di nuyu mboolem soppe yi ñu fi fekk góor ak jigéen mag ak ndaw naru ñoo teg ci kàddu yi dara waaye nag comme dañoo waxloo ci ëdëb ak it pays bi mooy waxloo mooy programme xaw moon danaa romb lu mel nii waaye xam naa ne fa ma nekk it maa ngi jéem a roy baay te bàyyi koy roy di xool yoonam rek ci zikkëri ngay nekk guddeeg bëccëg alladina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi rabbana ma xalaqta hada batilan subhanaka faqina adaba naar ñoo ñu ñoom boo bëggee gis ñu dox ci kaw suuf di nelaw di yeewu di àndoo taalibi bàyyi moom ku ci génnee génne nga ñi nga xam ne ñoom ñooy lubb lu baab bi ñoo ñi nga xam ne xam nañ luy charia xam nañ luy tariq taalibe Baay laa wax nag xam nañ luy xaqiiqa waaye dañuy dund yàlla guddi ak bëccëg ndax dund yàlla dafa amoon sax waaye ñoom àgg nañ ci dellu cosaan ba nga xam ne loolu rek la ñuy dund kon nag maa ngi gërëm jotaay bu baax yoo xam ne rëccuwuma lii dafa dëggal risaala yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñëw ci jotaay boo xam ne nii na ko xadis ba waxee fekk fi ay tànneef yoo xam ak yoo xamut fekk fi suñu sang yu tedd yi nii dëgg-dëgg man buuñaa bu rëy laa su ngeen ko séentoo ci man tam gis ndollal bàyyi moo leen di dolli bàyyi laa fi fekk bàyyi moo fi ñëw waaye itam bàyyi moo toog bàyyi moo doon wax ana nafsu wal afaaqu mahma raayta tarani fa la absarat aynaaka ahla maishatan min abdi foofu alhamdulillahi kulluhu kon alquran li muy mag yëpp alhamdulilahi la tàmbalee kon ñu ñooy xam xamaaduuna yi li waalu hamdi kon nag ñu ngi sant yàlla ci loolu di santaat yàlla ci moolana Cheikh Ibrahim ñi yàlla jagleel di xaasal ñaan ci barkeeb sang yi mu fi fekk ak barkeeb fi njokk ci mëdët ci dësa ci nësëb ak ci leer ak barkeeb yéen taalibe yi mu fekk ngi ne bàyyi leen wër na penku ak xarfu gisut ku mel ni ay taalibeem taalibe yooyu mu doon juñu tey nga xam ne ñun ñoom lañ topp ba nga xam ne bàyyi ci Rihla Konakri yi tudd na tudd Seyd Ali Babul Hadra wa xalifatu Cheikh tudd tudd tudd Cheikh Sëriñ Bay tudd tudd ahmadu yaa ahmadu yaa cheikh ahmad fa fal taqtadu mbóot moomu ak leer googu ci laa leen di ñaanal leen ñaan ak warlu waaw ñaan warlu ci barkeeb mu xaadar bi ak ñi ma fekk nga xam ne ay sang lañ waaye tamit ci barkeeb ñi toog di leen déglu waaw ndax yàlla ay mayam du ko sànni ñi ko soxla rek te mooy leen ko ci ësal ñoom la koy jox képp ku fi teew jotaay bii rek am nga maxfiratullahi loolu xadis bi moo ko jox waaye amaan nga ci ndollal képp ku teew jotaay bii nii jàkkaarloog jaam yi sell yi ma fi fekk damaanal naa la aajo goo xam ne bu du mooy yàlla ak yàq ak bokk da ko gis jaxaran zahiran wa baatinan noonu lay sàkkoo ci yéen tam ngeen ñaanal ma damaanal ma ci suru Cheikh Ibrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin fatixi lima wulet walxaatimi lima sabaqa naasi lxaq bilxaq walhaadi ila saatika almustaqim wa i alihi xaq qadri mdaari azim la taftaxu lana biha baaba rida wa taysir wa taxluq biha anna baaba alcharri وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير sopp yi ma fekk nag cër bi doon seen cër ngeen yaatal ma ci ñu yaatal ma ci maa ngi ñaan nag xatmu bi ñoom ñu def ko moo xam fàttee la ñuy jàng ndoor wala dañuy joxe dog ndax tamit cër bu ñu la ko joxee doo jël lépp sëñ bi joxeel dog ok kon Cheikh Abdallah Cheikh Aqibu delloo nañ ko cër bi neen nañ joxe fàttee saat faate nañ ko jàngandoo ñun ñëpp rek benn yoon ci njiitam billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmiddin rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى لا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى رضا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح الإمام أبغنا صراط بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آل ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله عليك صلاة الله ثم السلام فبرأ